asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ànd ak ñun ci Foncab TV noo ngi taxaw fii tey jii ci Detroit ci kër sëriñ Touba gi ah, nekk fii ngir quatrième convention wu fondation Cheikh Ahmadou Bamba mu North America jëmm ji ñu taxawal nag mooy ki nga xam ni mooy Serigne Babacar juuf am une double casquette. benn bi moom mooy jëwrinu Canada waaye bi ci topp it moom mooy euh, ki nga xam ne moo board of trust fii ci fondation Cheikh Ahmad Bamba euh, Serigne Babacar ñoo ngi lay nuyu euh, ñoo ngi lay dalal ci cap TV bëggoon rek jox la sunu micro nga nuyoo ak bokk yi nga xam ni ñooy téléspectateurs yi seetaan ak di topp cap TV.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 kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax di nuyu itam euh, téléspectateurs yi seetaan télé bi yëpp waa di leen sant. jërëjëf sëriñ Babacar euh, mu mel ni jóge ngeen Canada ñëw ci quatrième convention bi ànd ak délégation boo am solo mel ni it ni amoon ngeen yéene Serigne Mamor ak si fa ngir ubbi kër sëriñ Touba gi nga xam ni bokki taalibe yi ne Canada ak bokki jullit yi ànd nañu ngir jëmmal ko fa. ngir liggéeyal ci Serigne Touba lolé it ñu bëggona xam rek euh lan mo ci xew euh te xamé ko ci yow mi nga xam ni yow yaay jëwriñu Canada. waaw sëñ kayta xam nga sëñ bi dañoo ci programme bi dañoo schedulé won mu ñëw fa mercredi de 31 juillet euh waron fa yegg euh, ñu def célébration journée Cheikh Amadou Bamba mais en même temps couplé ko ak inauguration wu kër gu bess gi nu sàkku bi nu kii te te toxu fa bu yàggul euh, waaye li may wax rek euh, jaam ak pexeem yàlla ak dogalam sëñ bi dafa amoon ay gàllankoor ba mënul fa yegg si waaw léegi bi mu ko defee célébration yu journée bi def nañ ko toir kal di sant bu baax nag mu jaar yoon lépp wax dëgg yàlla waaye nag sëñ bi bi ma jokkook moom it lim ma xamal mooy expliqué ma rek gàllankoor yi ko téye woon waaye li mu wax mooy bu ñibbee incha allah dana seet en fonction calendrier bi mu yor seet date boo xam ne dana dana dana jàppandi comme ça nga xam ne day jóge Sénégal ñëw directement Montréal inauguré kër gi loolu rek koy yëkkati mu ñëw Montréal inauguré kër gi après delluwaat incha allah. waaw ah, jërëjëf sëriñ Babacar kon loolu it euh, day nekk loo xam ni euh, dafa dugg ci fii ji di Tutrooy ndax sëriñ bi miinoon nañ ni euh, journée culturelle Cheikh Ahmad Bamba yi la daan ñëw muy at ba at waaye ñu gis ni ñëwaat na fi yoon woo xam ni lenn rekk ko andi woon mooy dajale murit yi. ñu ànd liggéey Serigne Touba ba loolu ci la fondation Cheikh Ahmad Bamba juddoo kon lu mel nii it bu fekkente ni wax na ko ca Canada dañuy xam ni dana fa ñëw incha allah te lenn rekk koy tax a jóg muy inauguré këru kanadaa gi ak ñaanal leen kon loola it dana nekkaat loo xam ne lu am solo la ci eh, lii nga xam ni moom mooy liggéeyu FONCAB kon sëñ Babacar eh, daañu ñëwaat aussi nag ci benn question boo xam ni eh, mooy li ñu dund tey. te dunde ko ci biir jumaa ji nga xam ni fala mbokk jëwriñ yëpp ak mbokki taalibe yi daje woon ngir euh, liggéey dafa am yoon wu muy doxe ñu dem ba ñaari at yi jeex ñu tegaatoon bureau yeneen ñaari at yi jeexaat tey jii ñu waroon a tegaat beneen bureau waaye mu mel ni am na cachet spécial bu fa feeñ boo xam ne émotion ak euh, euh, bëgg Serigne Touba moo ko lal ak bëgg réussite ci liggéeyub Serigne bi loolee ñu bëggoon rek nga delsi ci tuuti. waa dëgg la xam nga xam nga sëñ bi bi mu fiy dellusiwaat euh, yoo xam nga sëñ bi bu jógee Sénégal ñëw ba fii la ko yëkkati lu am solo la lu ko ñor la kon bu fekkee dafa jóge Sénégal ñëw ni dama bëgg yéen ñii ngeen bokk di liggéey waaw te loolu itam vision boo xam ne peut-être ñu bëri amuñu ko ndax ñun ñii ku ci nekk ab daayira nga yor quel que soit mbooloo ma nag am na loo mën a bëgg di nga ca nekk di ngar ngari ay ati ati at balaa moo sotti alors que ñun ne pouvons pas dara Simla ak Saala loolu ñu jublu mu doon vision bi mu amone yalla def boba ak nous. muy ñenti at wax deug yalla bi sell lool te jaar yoon am ay avancé yo xamni ñepp tek en français on ne change pas une équipe qui gagne et yenn changement c'est même prendre des risques ndax loo xam ne at mi ngi fi mbooloo xam ni mbooloo compliqué waaw mbooloo moo xam ne am at xuloo amu fi xeex amu fi kenn dégguñu ci dara sëñ bi ci boppam seedeel nañu ko yéen de lima ma kii ci yéen mooy mosuma dégg kenn ñëw ci yéen di plaindre naan diw def na ma lii wala wax na ma lii at ngeen ànd ko loolu firnde bu wóor la firnde bu wóor la kon loolu bu amee lu tax ñuy soppi la fa newoon waaw sagam mi ngi dox wax dëgg yàlla mbokk rafetlu ko wax na gisu gisu toi dañu sant sant ni Tuubaa rek xam ne sëñ bee ci jàpp waaw. waaw loolu loolu moom mooy li wér. maanaam loxo sëriñ bi ak euh, mbirum sëriñ bi dafa dafa feeñ ci bi ñuy renouveler waat li nga xam ni moom mooy bureau bi bokk yëpp ànd doyloo non seulement sëñ Fallou sàmb waaye doyloo it bureau bi yëpp à travers li ñu liggéey mu mel nit foofu am na cant goo xam ni war nanu Euh, gannaaw bi nga xamee ni sant Serigne Touba rek nu war waaye am na cant goo xam ne moom daf noo war ci lii ndax euh, boo ko xoolee ci mbooloo murit yi nga xam ni ci daayira yi ci fondation yi ci lu mën a doon am nañu loo xam ni problème la te problème boobu boori na ci li koy indi muy ñii ñuy tudde ñu jàng euh, wàllu càmmoñ gi ak ñii ñuy tuddee ñu jàng wàllu ndeyjoor gi muy jàng alxuraan ak ñi jàng ci école yi mu mel ni dana am ba dana dem ba indi benn méfiance

waaye def ci ñoom benn bëggante benn doylonte benn confiance boo xam ni daanaka kenn mësu koo gis fenn kon loola mooy lii nga wax ni loxo sëriñ bi daa dugg ci mbir mi te it fondation bi wóor nañu ñun ñi ci ne di ci yëngu te daan yëngu ci ay organisation yu ko jiitu ni lii moom loxo sëriñ Touba mi ngi ci kon loola la ñuy def rek mooy nga ñaan yow mi nekk ci board of trustees lañ ci bëgg yéene ko ci sëriñ bi defal lu ci lu kawe suñu njor te kenn bañ ca gis sa bopp. voilà mooy li nga wax nii rek mooy firndeel li ma la doon wax sànq mbooloo mu boo ànd ñeenti at mosoo ci dégg coow te ni nga ko décrire nii peut-être mu gën a leer ci nit ñi ndax ñi nga xam ne daara la ñu jaar daanaka bindu kii xamuñ ci dara ñeneen ñi nga xam ne man mi informaticien la sëñ Lamine beneen métier la am waaw njàngu tubaab la jàng. mais yàlla xam na ne boo ñu gisoon ñu ànd doo ci xamee kan moo ci ndongo kan moo ci ndongo daara kan moo ci intellectuel ñun ñëpp danoo bokk daanaka nekk bokk jëmukaay daal waaw loolu firnde la ni lo sëñ bi loxoom a ngi ci waaw ndax li ma la wax rek ànd dafa jafe waaw surtout mbooloo nag waaw yàlla bu nu defalee nag tawféex ba nu ànd ñeenti at coow jibu fi te wax dëgg yàlla bu nu waxantee dëgg rek gis nañ fi ay résultats yu concret yoo xam ne ñëpp mën na cee teg waaw kon loolu dañ ci sant bu baax di ñaan di ñaan yàlla mi dara tawul waaye sëñ bi sax li nga wax rek moo ci nekk sëñ bee teg loxoom ci fondation bi waaye ñaan day ngànnaayu julit rek waaw kon ñuy ñaan sunu borom mi nga xam ne dara tëw ko mu teg loxoom ci fondation bi làq ko foo ko fu yàgg yàlla yëgul te jëmmalenu foo xam ne kawe na sunu njort te bu ci kenn gis boppam amiin euh, Serigne Babacar Diouf kooku moy euh, ki nga xam ne jité board of trustee fii ci fondation Cheikh Ahmad Bamba bu North America waye di jëwriñu Canada and ak délégation bu am solo jóge Canada ñëw participer ci li nga xam quatrième convention bu fondation Cheikh Ahmad Bamba bu North America kon bokku julit yi bokki talibé yi yeen ñi ñuy top ci Cap TV noo ngi leen di sante di leen gërëm te di leen jox dig daje. ci yeneen talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asiru mahal abra. jere ngeen jëf ci vidéo bi nga don sétane kep ku ci bëgg yeneen vidéo da ngeen subscribe fi bu ko défé ñuma leen a yeneen vidéo yi nekk ci suñu YouTube channel fankap di fondation bi nga xamné mo moo boole daayira yi nekk fi ci amerique ak li ko wër ngir liggéeyal Serigne Touba khadim rasoul jere ngeen jëf.